fukki fan ak juróom ci weer wu nekk nag deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanu bés bi yow sunu boroom yàlla na nga ma jéggal jëggal samay wayjur ak way gëm ñi bis ba ngay taxawal ak regle muy ëllëg yowmal xiyaam rabbana axfir lii wali walidaya walil muminina yowma yaquumul xisaab rabbana axfir lii wali walidaya walil muminina yowma yaquumul xisaab xadiisu bis bi jëleef na ci abi hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak nubuwa dara desu ci lu dul way bégle yi ñu ne ko lan mooy way bégle yi mu ne mooy gént gu baax xadis bi buxaari yi nettali na ko an abi hurayra an annabiya sallallahu alayhi wa qaal lam yabqa min annubuwati illa almubashiraat qaalu wawa almubashiraat qaal alruya alsaalixa rawaahu buxaari waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñett yu toftal fanweeri saa benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili timis juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili gee juróom ñetti waxtu yu tegal benn simili loolu mooy waxtu julli yi ci Tuuba ak li